coalition Benno Bokk Yaakaar nar a dund ay jafe-jafe fii ci département bu Mbacké li ko sabab nag seen liste bu ñu jàpp ne baaxul a taxoon ndaje mu jàmp moo xam ne ay candidat ay kàngam yu ñu ràññee ci wàllu ko politique waaye tamit ay coalition de parti ak i mandataire ñu ne nag jamono ji liste Benno Bokk Yaakaar baaxul te it duñu nangu mu jàll fii ci département bu Mbacké list Benno Bokk Yaakaar boobu warul dem ci élection yi ci commune Mbacké dañu constaté que ni liste respecté wul règle de parité euh, loolu nag effectivement bi ñu koy constaté fekk na délai de saisine yi su tuuti waaye teewul ñu dajaloo waxtaan ci suñu biir tënk un plan d'action pour mën a xeex bi. parce que list bi c'était truffé d'erreurs boo commencé góor war a respecter règle de parité jigéen ngay tàmbali ngay mujjee boo xoolee profession yi ménagères yi ñi ngi accès ñi ngi ñi ngi succédé wu. féminin féminin. loolu yëpp c'était séant da boo xoolee danga koy gis ñu bàyyi mu dem. li tax nag ñu ne ay rëq-rëq yoo xam ne gis nañ ko ca googale liste tey nag yeneen liste yi ko amoon sax te ñu leen koo gàntal ba tax na ñu ne kumba am ndey kumba amul ndey loolee duñu ko seetaan benn yoon. dafa am liste yoo xamante ne nii dañ leen a rejeté ci même critères yi non respect de la parité liste bu mel ni liste su colonel dañ ko rejeté am na liste yoo xamante ni nii téye nañ leen ci ci aussi ci anam yooyu bu mel ni liste gëm sa bopp ci département bi. léegi kon nan lañ mënee bàyyi list Benno Bokk Yaakaar mu dem te ñu gis ni list bi erreur yi ci nekk sa saute à l'œil nu administration bi ñu jàpp ne kumba am ndey ak kumba amul ndey def cee am. dafa am du ci tey suñu xel ñun dañuy yaakaar ni la commission chargée de recevoir les candidatures dañu yaakaar ni avec le préfet en tête yaakaar nañ ni laxisme dafa am oui laxisme dafa am parce que list bu mel noonu boo ko xoolee boo ko wonoon xale boo xamante ni CI la nekk. dina la mën a génneel erreur yi ci nekk loolu yëpp ñu bàyyi mu dem pourquoi impunité électorale parce que xam nañ ni Benno Bokk Yaakaar lu leen neex def. que dinañu ko xeex ndax listu Benno Bokk Yaakaar ñu nangu muy dem élection ci diwaan bu Mbàkke. ñu daje pour xeex ko te xeex bi nag dafay tàmbali léegi niñ ko fas yéene xeexee mooy euh, conférence de presse d'abord parce que njort nañ ni leader yi nga xamante ni nii yëpp ils sont candidats. à la à la mairie en 2022 ñoom ñëpp war nañu daje ci biir week-end bi pour ñu toog tënk def une conférence de presse ñaawlu ko bu ñu fa jógee dinañ am plan d'action boo xamante ni tout le long du mois peut-être ba keroog ñu koy régler dinañu sitting indi ñun ñëpp suñu mbooloo toog buntu préfecture bu ko laajee ñu dox ci biir dëkk bi seeti kilifa yi xamal leen ni lii mënta dem xeex bi nag du xeexu waa Mbacké kese. parce que xeexu Sénégal yëpp la jurisprudence la mën a indi parce que liste bi c'était truffé d'erreur kàngam yi nga xam ne ñoo teewoon ci mile ndaje ne naka xeex googe dàq ñu yóbbu ko ci sax ci kanamu kilifa diine ngir yëglu bala mbir yi di ëppi loxo xeex bi dina jaar foofu bàyyiwuñ dara parce que dinañ njëkkee ci kilifa diine yi waxtaan waxtaan wax ak ñoom pour bu ñu déggee dëkk bi di yëngu ñu xam li ko yëngal mais xeex bi écarté wuñ si dara ku nekk sa gox yi ngay dugg di wër ci kër yi dinañ leen xamal ni Benno Bokk Yaakaar warul bokk ci élection yi di ñëw ndax dafa jalgati yoon. di lancé nag un appel à toute la population mbackoise parce que xeex bi xeexu waa Mbacke la xeex bi xëy na les leaders politiques les acteurs politiques ñu ngi au premier rang mais du seen xeex ñoom rek moo tax population yi nañ ci dugg ñi nga xamante ni dañu bëgg Macky Sall jóge ci bopp réew mi. nañu dugg ci xeex bi ñi nga xamante ni dañu xalaat ni Macky Sall saboté na commune Mbacké saboote na département bi ñoom tamit nañu dugg ci xeex bi parce que foofu lay gën a simple mu bañ a bokk du tout loolu la ñuy xeex combat bu légitime la te ñu ngi si woo waa di si woo aussi waa département. leen ndaje nag ñu ngi ko doon amalee ci Mbacké dajale woon ay kilifa yu nekkee ci parti politique yu wuute ak ay candidat ñu ne nag xeex bi day doog a tàmbali tey nag dinañu ko wéyal ngir jàmmaarloog liste Benno Bokk Yaakaar fii ci diwaan bu Mbacké.